ñaareelu xaaj bi ci ñaari xaaj yi kenn ci ñi ñu tànn mu ngi tuddoon Étienne Étienne feesoon na ak xel mu sell mi te def na ay kéemaan yu bare ay yawut tàmbali di werante ak Étienne mënuñu woon yey Étienne ndaxte Étienne dafa feesoon ak xam-xam bu jóge ci xel mu sell mi jaxase Étienne ak nit ñi ñu tuumal ko ne dafay sosal Musaa ak yàlla ñu yóbbu Étienne ci attakaay ba foofu ñu tuumal ko ñu ne dafay wax lu juuyoo ak kër yàlla ga ak yoonu Musaa bi ñu xoolee Étienne xar kanamam leer ni bu malaaka sëriñ bu mag bi laaj ko ndax li ñu ko tuumaal dëgg la Étienne tontu sëriñ bu mag bi wax ci yonent yi mu wax ci cosaanu yawut yi dale ci Ibrahima mu ne leen ñoom weddi nañu Yusufa Musa ak yeneen yonent yi weddi nañu te nanguwuñu kàddug yàlla gi xel mu sell mi wax jaare ko ci yonent yi mujj gi weddi nañu Yesu Kirist doomu yàlla ji ba noppi rey ko yawut yi daldi mer Etienne Taine xool asamaan ne seet leen maa ngi gis asamaan yi ubbiku te doomu nit kaa ngi taxaw ci ndeyjooru yàlla jëf ya saar juróom ñaar aaya juróom fukk juróom benn bi ñu déggee loolu ñu dal ci kaw Étienne ñu génne ko dëkk ba dóor ko ay xeer bi ñu naan dañuy rey Étienne dañu summi woon seeni mbubb dénk wenn waxambaane wu tudd sol bi ñuy door Étienne ay xeer mu ñaan ne borom bi yeesu nangul sama ruu bi mu ko waxee mu sukk wax ak baat bu kawe boroom bi bu leen bindal bàkkaar bi ba noppi mu nelaw jëf ya saar juróom ñaar ay nit ñu ragal yàlla jël Étienne jébbal ko yàlla bés booba la yawut yi tàmbalee fitnaal taalibe yeesu yi taalibe yi daw daldi tasaaroo ci biir yuda ak samari ndaw yu ñoom des yerusalem sool di dugg këroo di jàpp ñépp ñi gëm yeesu ñu tëj leen kaso léegi ma laaj leen juróom ki ñu dóor ay xeer ba mu dee naka la tudd Étienne la tudd juróom benn kan la nit ñi denkoon seeni mbubb bi ñuy dóor Étienne Saul juróom ñaar kan la Étienne gis bi mu téenee xool asamaan Yeesu la gis mu taxaw ci ndeyjooru Yàlla baay bi juróom ñett lan la Étienne def bi ñu koy dóor ay xeer bi ñu koy dóori xeer dafa sukk ñaan yàlla mu baal ñi koy dóor Étienne def na ni Yeesu merewul ñu ko fitnaal dafa leen baal juróom ñeent ci seen xalaat ndax nun itam war nañu baal ñi ñuy fitnaal lu tax nun itam war nañu baal ñi ñuy fitnaal te boole ci bëgg leen ci dëgg-dëgg du ñoom ñooy noon bi seytaane moo leen di jëfandikoo fukk ci seen xalaat ñan la yéesu di teeru ci asamaan dina teeru ñépp ñi gëm ne mooy kileen musal fii la nettali bi yem